不懂。 waaw. waaw xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw. bisimilah. asalaamaaleykum asalaamaaleykum ginnaaw bi ñu sante yàlla jullit sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam may sant sama ñaari waajur di sant ki ma sopp loolu muy Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu di ziar kilifa diine ak kilifa aada yi fi nekk yàlla bàyyi leen fi ñu ju woon yàlla tas ñu seen barke waaye ba tey duñu uh, fàtte di ñaanal ñi feebar yàlla yëkkati leen ñu caabi féete ginnaaw du leen fàtte yàlla na leen yàlla may liberté waaye duñu fàtte nag ñi nga bàyyi ñu nee naa la nag euh, defoon nañ ko daaw fekkee déwéna euh, li nga xamante ne mooy euh, cant yi nga xam ne dañ koy def ci Pikine Jidda Caaroy Kaw muy cant yi nga xamante ne dañuy defar ay bu ñu paree daal di def ay cant yu am solo ñu koy defee fii nag ren di septième édition bi waa Karim Zikrullah ànd ci ak ki nga xamante ne mooy Baye Serigne ak képp koo xamante ne yaa ngi Pikine képp koo xam ne yaa ngi Jidda tey foofu lañ ñëwoon nee naa leen gis ngeen ndogu yaa ngi nii am na loo xamante ne lu ne fàng kenn du ko jeex nee naa leen euh, ren nag mooy euh, euh, septième édition bi nga xamante ne moom la ñuy Kifne TV nag ñëwoon jóge ba Kër Massar ñëwoon ci cant yi di wax na rek képp koo xam ne suñu téléspectateur nga ñu ngi lay nuyu di la ziar yàlla di leen ñaanal kooru jàmm yàlla nañu yàlla defal kooru jàmm yàlla defal ñu sutura defal ñu taraanga may ñu doolay poos nee naa leen xam naa Kifne da ngeen may topp rek sama caméraman waaye maa ngi lay gërëm Nétro maa ngi lay gërëm bu baax di la ziar di la kontaanee bu baax baax a baax noo def tur bi. man Abdoulaye Ndiaye. waa Abdoulaye ñu waa Kifne ni ñoo fi ñëwoon ci cant yi nga xamante dañ koy def at bu nekk di ko defee ci Jidda nee naa la euh, def defaat dafa nekk ne loo xamante ne lu jëm kanam la euh, mu nekk loo xamante ne ma bëggoon a xam rek euh, sa taxawaay tey ci bis bi lan la. waaw bis bi dafa nekk loo xam ne dañ koy def ay at yu bari te biñ ko dalee def ba léegi yoonu yokkute lañ si gis ndax ab cant moom bu ko dégg rek mooy santalee leen la. te sant moom boo ko gis moo waral mbooloom yëpp déplacé wu chaque at ñu koy def di génn ay ndogu di di di génn ay ndogu def ay jàng yu mag fii nii dañuy def ay jàngkat yu mag. ñu sant yàlla ndax du koor moom ko xam xam ne amul amul dara lu ci des quoi ban taxawaay boo xamante war nga ma ko wax te nga ne bu cant yu ñëwee dinañ ko taxawee taxaw borom cant yi moo wone loolu ndax ku woote cant yi mooy Baye Serigne te ku am bis day taxaw ci sonn ci te waa tamit du desuñu ginnaaw bu leen waaye woo ci defante ci lu baax da la ciy def woo la ciy wuy si 100 amul fay kon yow ci mbirum dañuy yi après waajale café gi soo ko waajal mburu yeeg yooyu. macha allah macha allah ñu ngi leen di kontaanee bu baax a baax a waa xaaral ma xool borom këll gi kooku sama doom la <laughs> maa ngi lay ziar. yaay delloo ziar. waa Kifne TV ñoo ñëwoon tey ci cant yi nga xam ne nee naa la ren mooy septième édition. mu nekk loo xamante ne chaque année dañ koy def fii ci Jidda. Euh, sa taxawaay si bis bi tey la. waa kontaan rek a sant Serigne Saliou wér wér di ko santal bu wér wér jox ni bis moom daanaka yàgg na a feer sax daanaka ab la ñuy sa njariñ a ci barke Cheikhul Khadim amiin tur bi Pape Gueye bu Serigne Saliou Pape Gueye bu Serigne Saliou man Tidiane bu Serigne Fallou jeex na xanaa neex <laughs> ah ñu ngi ziar de borom réegu ne delloo ziar ah eh, bëggoon nañu xam sa taxawaay si bés bi lan la ah kontaan na mbégte rek ne suñu waay moo ay suñu doomu ndaw Baye Serigne ñu ku ñu xam-xam ne ay taalibe Cheikh lañ ne jàmm jum sekk ak ñun sama mbokk nga de waaw gis nga man taalibe Cheikh la moo ñu évité moo tax ñu ñëw taxaw ci bés bi gis nga taalibe Cheikh ak Tidiane yeeg xaalis yeeg ñëpp ben benn lañ wallaay catholique yi sax ñun ak ñoom benn lañ kon yàlla yàlla def bundu Pikine nga jëm boo jaaree tali bés bundu Pikine nga gis nga c'est la pikinité <laughs> gis nga la la wona ne la la xamna après euh, sama cameraman day top ndogu yi nga xamé ne heure ndogu bi jot na xamna xam après da ngeen di top jëli ndogu ya mu nek lo xamné ne nee la guddi gi du yomb cant gi mak mo fi am ren 7e édition mu nek lu am solo lo Netro dama lay rek ba ci kanam Thank you. ñu ngi fay nag ñu ngi waaye. ay ca ginnaaw bi ñëw santaate yàlla julli ci sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam may sant sama ñaari waajur di sant ki ma sopp lool muy Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu waaye foofu laay ziyaare kilifa diine ak kilifa aada yi fi nekk yàlla bàyyi leen fi ñu ñu woon ginnaaw yàlla taas ñu ci seen i barke waaye ba tey duñu fàtte euh, di ñaanal ñi nga xam ne heure bii da leen a fekk ci lalu hôpital yi ñu feebar yàlla yëkkati leen waaye ñi tëdd ci prison yi fàtte wuñ leen waaye duñu fàtte ñi nga xam ne danoo dëdd woon ñu ginnaaw yàlla leen yàlla yërëm euh, waaye foofu la ñuy ñaanalee suñu kilifa diine kooku xalifa général kulli Tidiane waaye du ma fàtte borom ree ju neex ji kooku sëñ Mountakha Mbacké lañ koy wax waaye damay ziar képp koo xamante ne rek yaa ngi may déglu sama téléspectateur yëpp maa ngi leen di ziar di leen kontaane ñi nga xamante ne ñooy safoo di faale ki nga xamante ne mooy émission Ndeye Date bi nga xamante ne mooy tolluwaay jamono tolluwaay jamono nag tey dafa doxantu euh, waa Kifne TV télé bi nga xam ne dañ koo tuddee ki fi gën muy Seydina Mohamed borom xam ne nee naa la bu dul woon moom leneen la ñuy doon ki nga xam ne moo waral weeru koor moo waral julli moo waral lépp kooku xam ne mooy ki fi gën euh, di wax ne rek tey dañu doxantu woon fii ci Pikine fii nga xamante ne tey nee naa la mooy septième édition bi nga xamante ne moom la ñuy def at bu nekk fii ci Pikine jëddal caaroy kaw euh, bàyyi Serigne sama rak sama xarit di ko def muy ñaan goo xamante ne cant la euh, waaye dañ ci boole nag waaye li ci gën a mooy dañuy defar ay ndogu année bu nekk ñu defar ay ndogu jox ko jaamu yàlla yi jàkka yeeg jumaa yi waaye bu guddi gi jotee nag ñu def ay cant yu yéeme xam naa ci kanam tuuti rek incha a rabbi cant yi dina mu ngi ci suuf waaye nag dañ fay fekk ki nga xamante lañ ko fekkoon muy ki nga xamante ne seen xalifa la seen sëriñ la euh, nee la fii lañ ko fekkoon waaye ren nag euh, doomam moo ñëw euh, nee naa la nag defoon nañ ko daaw fekkee déwén xam naa ñaan gi nangu na ndax ndeysaan sëñ bi bu muy ñaan nee nañu yàlla nañu yàlla may ñu fekkee waat ko yàlla mayaat nañu fekkee ko ndax am nañu ko fekkee daaw te ren fekkee wuñ ko kon ñi nga xam ne da ñoo jiitu ba tey dañ leen di ñaanal yàlla yërëm leen ñi feebar yàlla na leen yàlla yëkkati may ziyaar di kontaane ñëpp waaye balaa maa dem fenn rek nettaro sama caméraman dama jàkkaarloo ki nga ne ndijaayu kër gi la mooy ndijaayu xale yi mu ne lu xew ci kër gi rek mu ngi fi eh, fekke kon xamna dama koy jox cadeau gi rek mu waxtaan ak mom ba pare ñu doga a ci sëñ bi sëñ bi no def. alhamdulilah sant yalla bu baax ndey daal ñu ngi sant yalla di ñaan yalla mu may ñu fekke dewel ak wër nin ko defe won daw yalla def nañu fekke wat ko ren yalla nañ ko wat dewel ñun ñep kenn baña a ñu boole ko wër barki Serigne Touba Mbacke ah mbir mi nag da def chaque année ñu def ko rek muy septième émission boo xam ne bii ñu ngi koy def toujours ba Baye Serigne moom xale la d'accord waaye mënoon na nekk comme yeneen xale yi ci dëkk bi ma mënoon na ànd ak xale yi gens wala xale yi mandi di taxawaalu bëgg dara mais nag wax dëgg yàlla ñoom ñu nekk xale yu am jom fas seen jom wut seen i soxna toog seen kër baay ak seen ndey wuuf seen ndey ji ak ay seeni i mag yu jigéen ah léegi nag man mi nga xam ne maay seen kilifa seen kilifa di seen magu yaay amul dara luy xew ci kër gi ca dikk ñu jiital ma ci ah, ah leen ko seen bàyyi bàyyee woon bu leen neexoon ñu dindi ko mais dañ ko yokk mais wàññiwuñ ko wax dëgg yàlla. voilà foofu laay ñëwee rek eh, ndeysaan eh, di ñaanal seen bàyyi bi nga xam ne mooy Ibrahima Ñing ñu xam ko ci Joseph ku ne xam na ne képp ko ku xam eh, axlu ki nga xam ne mooy artiste war nga ko xam yàlla jëlee ko fi mu nekkoon nit ku baax mu nekkoon nit ku koo xamante ne ndeysaan ku amoon diine di ñaan yàlla yàlla yërëm ko rek te xare ko àjjana di wax ne bis bi sax bu ñëwee dañ ko ciy fàttalikuwaale rendre la ci hommage ki nga xam ne sama rakk la bokk ndey baay euh, ndeysaan baay sëriñ at bu nekk da ko ci rendrade hommage muy saaliw daat nga xam ne moo daan décorer bis bi euh, moo daan defar ndogu yi rek lépp macha allah waaye dafa jiitu ji euh, ba tey ñu leen di ñaanal duñ leen fàtte waaye ba tey rek dañuy ñëwaat ci sunu ndijaay mu nekk loo xamante ne rek tey xale yi gis nañ ne jamono ji ak fi mu toll ak jeunes yi fi ñu fi ñu fi ñu toll ak ci jamono ji lan ngay mën a wax tey jamono ji ak léegi li xew xale yi léegi gëm est-ce que mu ngi ci ñoom ba léegi ak xale yi nga xamante ne tey dañuy def naka sudul noonu ban conseil ngay jox xale yi nga xamante ne ñoo nekk ci société bi ndax léegi réew mi changé na trop. waaw jërëjëf Ndeye ba tey wax ji ñu ñëwaat ci biir wax ji rek maanaam xale yi tey comme li ma leen waxoon rek ci laa dellusiwaat xale yi mënoon nañ nekk ay woyu di gens di mandi mais dañoo xool ci lu baax jublu ci yoonu Serigne tubaa boole koog yër seen i soxna nekk ak seen ndey ci kër gi comme li ma la waxoon léegi rek ndaxte buñ dikkoon fekk seen i waajur mel ne neen it mën nañoo soppi ku mel ne neen mais san ñu sante ko yàlla ñun ñuy seeni waajur ba nu yàlla féetalee ci yoonu Serigne Touba noo ci yoon bu baax ba suñuy dooma dikk ak suñuy jarbaat jaar ci yoon woowu ñu diko ñaan nak ñi ñaan ci yalla ak yonent bi Serigne Touba kep ko xamantene ñu ñëw nga ci bis bi bo fi indé fébar yalla nako yalla safara bo fi indé soxla yalla nako yalla yàlla faj ci daraje rasulullah yalla may ñu wër ñun ñëpp ban fekk wat ko nëgën di yow mi nak di sama jarbaat dekk ci koñ bi wax deug yalla musuma la xam ci dara lu deggu ak wax lu baax rek la la xamel wax deug yalla waaw lu fi xew ci kër gi di nga ñëw taxawu ko taxawoon bu rafet ma gis ko bu baax a baax muy lu ma kontaan te man noonu la ci bañ a fekk mais vraiment ma kontaan ci torop waaw di sant nag Maguette Mbaye bu baax a baax a baax ak sama doom ndey yi ma dendal muy muy ndongo ak sayer mi mhm. nga xam ne bii fu ma nekk ñu nga fa. Mhm. ñun ñoo bokk lépp ñun ñooy defandoo lépp ñun kenn ku ne xam nga sa morom tey ji boo waxoon dara tey ji rek. man man na la wax li muy tontu bu ñewé mom la même chose ñom ñaar ñi mhm. ñun bani xalé xale ba tey tuwaar kala ba féré so ba tey ñooy ànd mus ñu xuloo mus ñu leer na magan bay waru nok fekk mom xamna ci dara mom mhm. wa di sante sëriñ yi nak nga xamni ñoo joggé nga bu ñew fi ñi ñaan ñom tamit li nga xamni fecc li kóllëre mo leen ko ba seen wajur yebal leen ñu ñew teewal ko fi nga xam ne ñoo mhm. fi seen wajur ñomit yalla may leen wër ak ak tal ba at mu jot ñu gën ko mëna ñew barki sëriñ Touba ñomit lool la leen di ñaanal ci barki ji Fallou Mbacké di ñaanal ñëpp fekk ko ci daraje rasulullah jërëjëf jëf jërëjëf ñu bu baax a baax di wax ne Baye Serigne mi nga xam ne moom mooy def li nga xamante ne mooy ndog yi ànd kooku waa Karim Zikrullah mi nga xamante ne mouvement bi maay seen présidente ñu nekk xale yoo xam xale yu am jom nee naa la ñun suñu koñ xamuñu tijaan xamuñu murit xamuñu xaadir ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñooy xàccandoo ñooy dóorandoo ndax man tijaan bi lañ jël jital ma seen kanam kon nga xam ne eh, ñun amuñu xàjjat loo waaye Baye Serigne eh, dafa nekk xale boo xamante ne dafa judd sama kanam màggee sama kanam xam ko kon condamnel baayam di ko defal eh, condamné di dajale xaru tabaski di dajale ay fukki dërëm ak i cent franc ba mu tabaski ñëw mu jëndal ko baayam xar loolu fii la ñu fekk kon baay sëriñ lu baax rek lay lay am eh, ndax mënoon na taxawee yeneen tànk mais tànk yi rek la mën a am ndax dañ ko cay yar eh, mu xam ko kon xam naa damay jàll ci sama yaay ji rek ñu laaj ko ñaari kàddu ñu daal di doog a jëm nag ci sëñ bi yaay booy ñu ngi lay ziar waaw maa ngi lay delloo ziar bëggoon nañ xam tur bi. man Aram mbay laa tudd man naa seen bàjjen maa topp seen papa tubaar fakaala macha allah loolu nga wax rek ñoom sama sama bàjjen dafa gërëm seen yaay sama papa gërëm moo tax il faut mu am lu baax màggat Baay Faal la dafa liggéey ci kër gi fonk ay gorom fonk ay njëkkeem ba sëñ bi dem Touba ba léegi mu ñuy fonk léegi la ma wodd te ak cant rek jërul wodd njëkkee dama ñaanal xale yaay seen bàjjen maa ngi leen nu barkeel nag. ndax ñoom mënuñoo boon ndax ku Cheikh Samba Diarra Mbaye di sa maam euh, Moustapha ñi ngi di sa maam nga xam ba sëñ Amsatu war a dem ca guerre ba sëñ Touba di yeble Moustapha ñi ngi seen maam la yebaloon moom la sëñ Amsatu da ko ne doo dem sëñ Amsatu man maay dem man mii sa sa taal bi sa baay Fall maa lay demal kon nag lii lu hasard ñun Cheikh Amsatu rek lañ yaakaar si am Amsatou boobu nag moo jur sëñ Ndaam Lo mais doomam toog ne di sëñ Modou May sëñ Seex Lo rakkam moo jur ki toog nii kon tubaar fakal te fu ne nañu fekk ñu fa te tubaar fakal la Serigne Touba dana ku sant boo ci amul taal Serigne na nga ci am na am ab xarit kon nag lii bu leer gu toll noonu waa Kër Amsatou ñëw fi tey ñun suñu fierté la danoo kontaan kon nag ñoom xale bi ñu ko defee ñun suñu xol seen bu fekkee suñu waajur dañuy bëgg billaay tey sama xol fa mel ni galaas ndax lii ku ko takku ci Seex ma Masamba ci sëñ Amsatou Lo ñëw fii yendoog ñun yendoog ñun ba heure bi loolu sant yàlla la santaat yàlla la te dañ koy sant yàlla te ñu ñoo ñooñu rek yaakaar man mi wax ak yow na ak ñoom fu ne ñii ku leen xamul rek moo leen di laal waaye ku leen xam doo leen laal man mi ba ñaaw man dama naan dofub sëñ Cheikh Lo laa Lo moo ma faj tubaar fakkaal la allah. macha allah macha allah mu nekk lu am solo ndeysaan euh, wax ju jóge ci xol rek euh, day duggaat ci xol ndeysaan xol bi fees na euh, ndeysaan mu nekk lu daw yaram macha allah man sax mënatuma wax ndax am na loo xam ne ndeysaan dafa daw yaram torop waaye yaay muñal lekk ndeysaan ñu ngi kontaan bu baax a baax waaye xam naa dañuy dem ci sëñ bi rek nee la daaw baayam lañ fi fekkoon moom mii toog toog mu ñaanal ñu ne ñu déwén yàlla na ngeen ñëwaat eh, kon yàlla ñaanam gi nangu na yàlla indiwaat ñu fi eh, ñun waa Kifne TV muy nee naa la télé bi nga xam ne dañ ko tuddee borom barrière or bi ki fi gën eh, sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax di jéggalu nag ci dérangement bi auzu billaahi mina seytaani rajiim wa min kulli man lam yuhibbani mina rijaali wa nisaa'i wa inni u'iizuhaa bika wa surriyatahaa mina seytaani rajiim rabbi a'uuzu bika min amasaati sayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yaxduruun rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wajal lisaani wa qalbi saakiray kamahan hindal mamaati mahal imaani yallaahu saddid lisaani nawwir janaani safi amaani wasit baraay noo ngi leen di nuyu mbooloo mi di leen siyaara di leen ndokkeel di leen ñaanal jàmm ak tawfiix xam naa di yëkkati suñuy kàddu rek mu doon kàddu yu gàtt ndax ndigal moom caabi la bu ëppee du ubbi bu yéesee du ubbi te boo ko yootaanee yàq kànnaar ba di siyaare mbooleem ñi nga xam ne ñëpp teew nañ ci bis bi teewaay bi nag ñu ciy jiital suñu kilifa sëriñ Dame Lo xalifa sëriñ Cheikh naka noonu it sëriñ Mouhamadou May Lo xalifa sëriñ Amsatou naka noonu la ñuy sunu waajur sëriñ Cheikh Lo Baye Fall sëriñ Dame sëñ Mouhamadou May mi toog di imam Momo moko fi teewal man mi it ñoo fi teewal sunu waajur Serigne Cheikh Lo Baye Fall bis bi nak da doon bis bo xamne bisu la tay it borom monu nu ko sant moo nañu na ngeen ma sant bu ngeen santee ma dool leen te xéewal yi ma leen defal it na ngeen ma ci sant waye su ngeen wedde samay xéewal nak dana leen buggal te ko tarum buggal la te loolu it ñu man ci jangate lu bari ndax cant mom sun ku koy def rek na nga xamne borom amel na li ci njukkal te dana la ko fay sun borom moy ki nga xamne du jexal dara kep ku mana don ci kaw suuf sokoy laaj diko laaj bu yagge mu jéppi la sunu borom subhanahu wa taala moy ki nga xamne fo toll di laaj mu dila jox te boko noppé laaj mu mere la kon sunu borom mom nga xamne mom moy mooy yelloog moy ki nga xamne it mo ñu dimbalé may nu bañu fekke ko nga xamne it bis bi doon na bis bo xamne amna fekke won te fekke won ko yàlla dogal nag sunuy kilifa yabal nu fi ñu ñëw fi teewal leen fi teewaay bi nag dafa doon teewaay boo xam ne ca maam yàlla woon ñu di ko doxal mu rafet lool ba yegsi ci ñun ñii nga xam ne ñun ñëpp ay nawlante rek moo ci am solo te loolu la yàlla sunu borom dogal fii ci bisub tay bi ndaxte seen maam dafa taxaw woon sunu maam taxawu ga nag mooy bokk na ci ba jamono ja ñuy joxe soldaar seen maam moo taxawoon ne sunu maam moom du so du ko seetaan muy solu soldaar mbubbam moom waroon sol moo ko mujj sol kon loolu yaakaar naa euh, jëf la joo xam ne ñun njabootu Serigne Amsatou duñ ko fàtte benn yoon te loolu it day doon jëf ju rëy rëy joo xam ne dañ koo jëfal Serigne Touba ndaxte ndigal loolu Serigne Touba ko joxe woon ba sunu maam joxe téeméer ca lim boobu keroog bañ ne ba tubaab bi waxee ne kenn ku ne té mbooloo mi nga joxe yow mi joxe yow yaa koy jiite sunu maam keroog ñoom ñii seen maam moo taxaw ne ko mbubb mi waroon sol moom moo koy sol kon yaakaar naa loolu ab ànd bu rafet foofu la mën a yem loo xam ne yow dalay biir ne ak dee nga jubali man ngaa dem mu biir ne la xëy na doo si mu jaral nit ki jaral la sa jëmmi bopp kon yaakaar naa ak bëgg foofu la mën a yem kon diggante li sëriñ bi waxoon ci diggante ab taalibe akub sëriñ ñoom seen maam doxe na ko ci sunu maam ànd àdduna la rek ndaxte diggante sëriñ ak taalibe ni ko sunu wasila a Seyxul Xaddim nee na dafa mel ne ku dégg ab woote sunu boroom mu bëgg a jug wuy ji te xamul kii woote fan la sëriñ ba xam fa woote ba ne mu ñëw ne la acca bisimilah nan dem nee na ñu ànd di dox di dox ba yegg ci keru garab ñu toog ngir noppalu ñu toogee ab diir sëriñ bi ne ko bisimilah taalibe ba toog bëgg a sartaagal sëriñ bi ne ko acca bisimilah yëggagun fa ñu jëm nee na diggante sëriñ akub taalibe noonu la demee saa yu demee ba gis ko nar a mu dox digganteem ak loola saa yu demee ba gis loo xam ne nar na caa tàbbi te loola gënul mu wattandiku ko loola nee na loolu mooy diggante sëriñ akub taalibe waaye la ca sëriñ bi teg dana waaye doonu ne dañuy tungoom kenn di ko tàbbal àjjana kon nga xam ne ab sëriñ mooy ki teg ci yoon wi xamal la li yàlla santaane li mu bëgg li mu bañ nga tegu ci sa kéemtalaayal kàttan soo naree jàddu yoon mënu la du noonu nii la loolu mooy diggante sëriñ ak taalibe kon loolu it ñu mu doon loo xam ne bind la boo xam ne ku ne war na ko bàyyi xel ci diggante yow mi tegu ci yoon ak ñi topp ci sa ginnaaw te it ñu wattandiku baax fëkkuk jamono ji yëngu yi bëri na kiri critiques yi bëri na wax ju ñaaw ji bëri na lépp it mu ngi ci biir réseaux sociaux yi kon nag loolu danañ ci yëkkati kàddu ngir soññee ci ñu xam ne ab sénégalais day li ñu ko xamoon mooy rafet jikko ab sénégalais li ñu xamoon ci moom mooy tiraanga waaye nag buñ jëggaani jee rek danañu wàcc sunub ànd te ko wàcc sab ànd ànd boo dem fekk ca borom kon nañu fas yéene jikko yu baax yi ñu xamoon ci sunu maam yi ñu doon ci dox ñu fas yéene cee dox jikko yu baax yi nga xam ne ñoom lañ ñu fi bàyyee woon ñu fas yéene nekk ci jikko yu baax yooyu di ca dox mel ne ki nga xam ne mooy alayhi salaatu salaam sunu borom keroog ba mu koy tagg taggewu ko ab juddu taggewu ko diwala jur taggewu ko kenn lan la ko tagge jikko ji rafet wa innaka la xalaa xulliqin asim yow mi nga xam ne ndaxte sunu borom da ko wax ne ko yow Muhammad alayhi salaatu salaam yow mi nga xam ne sag nekk sag am lépp man sunu borom la soob ma amal la waaye nag may ki nga xam ne maa la tànn moom mi nga xam ne mooy ki nga xam ne aj tànn la waaye lan la ko sunu borom tagge mooy jikko ju rafet yow mi nga xam ne doo delloo lu ab ñaaw nit du la jëf lu ñaaw nga delloo ko safaan nit bu la jëfalee lu ñaaw nga delloo ko rafet ndax ku gis diggante alayhi salaatu wasalaam digganteem ak Abu Lahab di nga xam ne bu dee rafetal kenn rawu ko ci ndaxte dafa bëri loo xam ne daa nekkoon seen diggante li ñu xam te yàlla sunu borom waxoon ko yonenteem mu jaar ci Seydina Jibril nee na Seydina Jibril daawu dañ di ma dénk ak dëkkandoo ba ma jàpp moo fi jógee dëkkandoo damay doon waaye alayhi salaatu wasalaam ñi mu dëkkandooloon ñuy deretam ñenn ñi doon ay dëkkandoo waaye lor nañ ko lor yoo xam ne ku mu doonoon ci jamono jii te yàlla jox la kun boo xefee nga jëfandikoo ko ci ñoom waaye lan la daan wax yàlla dañoo xamul jéggal leen kon bu dee ay jullit lañ it jëf jooju noonu war nañ koo roy ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam donte ne mënuñoo mel na moom waaye ñu jéem koo roy ndax jikko ji rafet ci la ko sunu borom tagge te jikko jooju dafa doon jikko yu màgg moo tax sunu borom ne ko yow borom borom jikko ju rafet nga waaye borom jikko ju màgg nga borom jikko ju tedd nga waaye ka nga xamee ne it dafa doon jëf-jëf ju ñaaw sunu borom da koo xas da koo yëjje te kooku da daan jël kàddu yu ñaaw di ko teg ci alayhi salaatu wasalaam muy ku mel na asrax ibnu zariq ku ñaawoon jikko la lu ñaaw lu ne daana ko teg ci deru yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye keroog jëfam yu ñaaw yooyu mu doon jëf jëmee ko ci yonente bi lan la ko ci sunu borom mujjee def mooy sawara la ko mujj faye kon nga xam ne jëf ju rafet day taxan nit ki yóbbu ko ci àjjana waaye jëf ju ñaaw day taxan nit ki yóbbu ko sawara kon loolu ku ne war na ko wattandiku ci jamono ji ñu toll loolu nag di wax ne bis bi moom sant la sunu boroom moo santaane ñu sant yonente yàlla Daawuud li tax mu nekk ci alxuraan ba tey ñu koy tudd mooy sant gi mu doon sant ndaxte sunu borom kat dafa nangu ne kii ab jaamam la waaye jaam bu nangoo sant la moo ko njabootam waaye ñun ñiit ci loolu lañ fa yéene nekk sëriñ mii nga xam ne moo wóotal yi tey nga xam ne moo ñu fi dajalu ñun ñëpp bis bi bisub lan la bisub cant la dimbale dimbale ngir lan ñi nga xam ne dañoo waroon a man a ndog te amul ndogo mu jox leen te loolu yonent bi moo ko waxoon alayhi salaatu wasalaam daam ku ñëw laaj ko ne ko alayhi salaatu wasalaam lan moo gën ci diine mu ne ko ñett di sellal sa bopp di tasaaram nuyoo du joxe aw ñam ci way ñàkk ñi kon nag loolu day dajawaat ci bis bi kon loolu bind la boo xam ne ku ne war na cee bàyyi xel muy nit da ngaa war a sell ab jullit dafa war a sell waaye dafa war a bëri yërmande di kum gis rek def ko ne boppam waaye nag lu mu yorit yéene ko nit ñi moo tax alayhi salaatu wasalaam dane almaalu saqiqatu ruux alal dafa sax ci xolu borom yow mi koy jënd di ko jox nit ñi nag te yàlla tax na nga xam ne sunu borom deful ci ak bëgg àdduna kon loolu am na solo xam naa li ñu bëgg a wax bari na te buñ ko toppee mën nañoo gën a guddal waaye daal di xamal ne bis bi bisub cant la bisub xéewal la bisub tawféex la képp ku fi teewit yal na borom faj say aajo saahiran wa baatinan xam naa nag eh, lu ci jub ñu sant ko yàlla lu ci dëng ngeen jéggal su ko defee ñu jox imam momit mu mu def ñaan rek ndax ci ñak ndax te mom mo fi teewal sunu kilifa di Serigne ndamlo mi nga xamne moy khalifa Serigne Cheikh Lo Ngaabu kon nak te mom mi wax deug yalla ci jang ak jangale rek ci la nek jugu ci it te mom mi it moy imam bi ndax suñu juma je ci Ngaabu mom mi mokoy jité kon yaakarna naa it mu ta ñak moy mu yëkkati ci ay kaddu lu mu neew neew te def ñaan ñu mëna yewé ko ko jéggul ñep wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo leen di Kifne TV waaw yéen wa tele ki fi gën mu yalla salatu wassalam ah wa waaw kumba wa len gor am ngeen fulla ba dee de yàlla borom yéen sam len ta ar len mu dem ba don ay tele tele tele suñu borom man nako ko yàlla na ko def barke xaadimal Moustapha yéen nañ leen ko te ñong koy ñaan yalla nako ko borom dogal barki borom tuba jere ngeen jëf ñongi ngi baax amin ñu ngi lay jaajeufal ay ca señ bi mu ta bañal bu wax señ bi il mu wax inshallah parce que señ bi mom euh, mom moy tejj euh, mu nek lo xamantene kaddu señ bi neena la lima teunkon ci wax ji nee naa la li ma tënkoon ci wax ji euh, sëñ bi euh, ndeysaan li ma tënkoon ci wax bi euh, sëñ bi da koo de wax parce que mooy actualité mooy actualité mooy li xew ci réseaux sociaux yi sëñ bi wax na ko weerante bi partage audio yi partage vidéo yi mu nekk loo xam sutura amatul ci suñu jamono ji ñu nekk lan moo ko indi li nga xamante ne mooy ay whatsapp ay a ah, lép loo xamante ne mooy réseaux sociaux rek moo ko indi nit yi nañ delloo si waat seen xel te xam ne delloo waat seen xel yi ci diine te xam ne mënuñu fee am leneen ah, yàlla la ñu am demee moom lañ fay fekk kon nañ jëf loo xam ne euh, suñu ñetti fanu bàmmeel euh, duñ fa am lu ñu métti euh, yaakaar naa ne loolu war nañ cee bàyyi xel mu nekk loo xamante ne message la bu mu dugal ci kàddo mi mu nekk lu am solo loo xamante ne nit yi nañ ci bàyyi xel surtout jeunes yi ñun jeunes yi nga xamante ne ay xale lañu war a delloowaat ci seen xel ci yàlla nañu changé waat xam ne am na loo xam ne doxul nañu bàyyi weerante bi nañu bàyyi waxante lu ñaaw Ah, sëñ Mutaxa borom ree ju neex di nee na na nit di kon kenn ku si nekk ki nga dendal na ko wax na la baal àq ndax àdduna amul solo ah, sëñ bi ndeysaan xam naa ne dañuy bàyyi rek sëñ bi ñaan ndax ah, sëñ bi moom tey <laughs> sëñ bi def sëñ bi imaam <laughs> imaam defal ñaan don't know, I don't know I don't know. ñëwaat fii nee naa la ba tey ñu ngi ci euh, euh, cant yi nga xamante ne moom la Baye Serigne di def mu nekk loo xamante ne nee naa la ren mooy septième édition bi def ni ñu mën fi daaw ren yàlla may ñu fekkeewaat ko ñun ak yow ba ba ba keroog muy muy jeexaa ah. di wax ne rek euh, nee naa la cant yi nee naa la léeg-léeg nga gis ñu naan nit buy def dara war koo wane mais xale buy def lu baax dañ koo war a wane àddina bi xam ko ndax xale yi nga xamante ne dañoo nekk ay morom tolloo ko ñu gis ko daal di koy roy ndax lii muy def nekk na loo xamante ne tey bu doon nga jël sax jumaa yi dem ci tali séddale ñi nga xam ne dañoo nekk ci oto yi dogu yi di leen fekk ci yoon mu jox leen ko ñu dogu mu nekk lu am solo loo xam ne nee la ren mooy septième édition kon bu fekkoon ne leneen loo xam ne lu baax la du egsi ba fii ah, kon ma wax ne rek bàyyi ah, ah, a kanam la am waaye amul tànki ginnaaw nee naa la nag man ci jàng Sëñ Fallou de maa ñëwoon ànd ak waa Kifne TV xool ci ñi nga xamante ne nag nee la ñooy nekk di préparé li nga xam ne mooy xët yi bàyyi pareegul de defar ay xëdd ndax après cant nit ñi dañuy xëdd ba pare doog a ñibbi ma fekk sax ki nga xamante ne magam la ñoo bokk nday ñoo bokk baay muy léegi euh, euh, nga noo def. waaw tey daal sama seer sama xarit ñoom maag yow ko ci bëgg naa sëriñ ñi yaakaar naa ne lépp fi la fekk muy sama rakk nag di caatu kër mooy caatu yaay di caatu baay. waaye su tabaarakallaa macha allah bàyyi sëriñ su ko neexoon tey ji mu dem ci waale wala mu dem feneen day def baat lépp lu mu ñàkk rek wala mu liggéey ko rek liggéeyal Serigne Saliou moo ko ñor bu ne tey jii am ko noonu bàyyi lu mu jàppoon bàyyi na ko na ko ma ngi ca mbàcc ma ma ngi ca bay ba ma ngi ruuj ma ngi ca lépp bàyyi Serigne daal lu ko waaye di ñaanal ci jamono ndax nit ku jox ko mu am xam nga lan ci jamono war koy ñaanal doomu ko may ak fi suñu yaay ji nga xam tamit tamit baax muy jur doom ju baax di ñaanal suñu taaw bu jigéen bi tamit di ay taba yàlla yàggal ko fi ak magam mbay seen bi nga xam ne moom mooy magu xale yi ñaanal ñëpp bàyyiwuma kenn waaye daal bàyyi sëriñ képp ku toog ci paas bi nag ne ma bàyyi sëriñ yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér parce que xel nii mu am mag judd na sax ba mu aas bi mu am te am ko kon ko tabaarakallaa bàyyi soo ko ñaan macha allah mooy xam sëriñ Saliou Saliou sëriñ Saliou di bàyyi sëriñ Saliou yàlla sëriñ Saliou mu nekk ma doon waxal mooy Ndeye Djigue kooku nag xam naa ne nit ñi dañ koo fàtte waaye doon na joué théâtre ah artiste la artiste bu mooy la léegi dafa nekk Touba ah saa Touba la waaye am na keneen koo xamante ne dinaa fekk daal moom ci kër ga la bokk ah maa ngi lay ziar.

ndax am na baax mënul passé nga yor njaboot baax na xaaral bi maag ba fekk loolu du ñu bëri waaye nag lii rek la ñu mën a ndax sa fukk sax sàmm jaaram baax rek la mën waaw yaay booy maa ngi lay kontaanee bu baax a baax a baax nee naa la nag fi ma mooy kër ki nga xamante ne mooy sunu yaay du ma ne yaay Baye Serigne sunu yaay lay wax nee naa la kër gi biñ fi foo di fi raam boobu kër gi suuf la woon mu nekk loo xamante ne euh, ñun fii lañ juddoo yaroo fi màggee fi ba toll ni ñu toll muy ne meen màggat mbay mi nga xamante ne ndeysaan ñàkk jëriñu rek la xam day la xëy di guddee wàcc jàngal ko ay njabootam njabootam liggéey rek la xam xamuñu taxawaalu xamuñu dara ñun fii leen juddoo ku baax xam nañ la nee naa ñu téeméeri at waaye taxaw nañ ci téeméeri kër wala dund taxaw nañ ci téeméeri kër mu nekk suñu yaay yoo xamante suñu yaay bu baax yu yar nga xamantene ne ñun morom sax lañ ko def bu ñu bëggee kaf ma lañu bëgg ree ci kër magal mbay bi la ñu nekk bi ñun ñëpp fa lañuy toog yëngandoo moom sama ñu waxtaan mu nekk loo xamante ne yaay joo xam ne dafa wàccee boppam ba maasee ay doomam mère Max nag dama naan yàlla na gudd fan euh, ku ne am nit yàlla na nga gudd fan mère Max ñu ngi lay ziar bu baax a baax maa ngi sant sama sama ñaari waay sama sama sëñ bi ci Tuuba ñëpp moom baax fan ka moom macha allah waaye day gàtt maa ngi leen sant waaw li ma si papa bëggee woon moom du toog benn bis boo xam ne du nga war ma màggal baax nga baax lool baax yéen ñëpp jàpp yàlla mayaat ñu fekkee wax mu nekk loo xamante ne sa doom di ko taxawal ko ba tey mu am tànk kanam waaye amul tànk ginnaaw mais Max bu kanamee tuuti ba nga génn jàkkaarloog bâche gis nit ñi mbooloo bi naa la luwee seet yomb na luwee euh, euh, bâche yomb na mais luwee ay nit yomb mais Max soo génnee jàkkaarloog mbooloo bi ci yëg-yëg lan day doon kontaan kontaan nag sama doom yi di kontaan nag sama doom yi woon ba ci kuwaat kontaan ci bàyyi seen bi nga xam ne fay baam jaar xala jaar ni ndeyam jaar xala tubaar fakalla masha Allah dama koy ñaanal nag dina ñaanal fan bu gudd ak di ñaan nag lii mu dugg ca bëgg ko lool ay ndeyam ay baayam bëgg ko ñun moom rek lañ xam ndax maam yàlla gën a tudd yàlla na ko saa borom yëpp ndax ci bàll ak ak ak i doomi ndeyam ak magam ak yëpp daal man la ko di ñaanal sama jarbaat gerte gi tubaab fakalla macha allah laaw moom la looloo yal na sama doom di ko jëlee. Babacar ñëw tubaab fakalla lu mu xawle ma di ñaanal sama sang ci sama sang yi tubaab fakalla macha allah sëriñ Ibra Déew la ñu ba bàyyi waa kër sëriñ Cheikh Lo ngaa bu sori na lool waaye tubaab fakalla mbaam ak sëriñ Cheikh Lo. dam ne tubaab fakkaat la macha allah lu dikk doon ñu yebal waa Ndao bu taxaw naka di la yebal nañ seen bopp may di ko may ak Cheikh ak seen i rafet tubaab fakkaat la macha allah lan fi yàlla mais kontaan nañ ci yow yal na la yàlla defal jàmm xam naa fi ñuy tëjee rek mooy jàkkaarloo ki nga xam ne mooy Babacar Babacar nag moom Serigne Babacar lañ ko duppee mu nekk sama mbokk taalibe Cheikh waaye lu waay xewle mu taxaw ci taxawaay boo xamante ne ndeysaan lu ko ci wax rek mu def ko Babacar moom mu defe naa moo res affaire bu xëdd yaa ah. Babacar ñaari baat rek Babacar yaa ngi waajal xët bi fii laa la fekkoon daaw bi ren lu mu am rek. su su ñaan waajal ba ko am. te dana dem nag ba toll si moment bi nga xam ne day génn kon chaque année nii lay def te ñaan nañu yàlla di teg ay carte yi ñaari mën a la teg. benn bi pomme de terre la ñuy sax suñu paree dañuy teg dañuy tudd dañuy ñaar su déwénee dañuy dañuy teg yokkaat yeneen di ko ñaan nag yaayam mais nga xam ne moom mënu ma maa fay dama koy bàyyi ak yàlla yàlla yàlla defal na yokk lépp nag. amiin Babacar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax yal na la yàlla defal jàmm kontaan nañu baax a baax a baax. xam nga ku ma taxawal nii monsieur le maire laa taxawal kii mooy suñu maire gox ah mooy suñu maire maire Djeddah Thiaroye Kaw kii la. laay maa ngi lay ziar bu baax a baax mu nekk loo xamante ne nee naa la cant yi ren mooy septième édition ñu koy def fii ci Djeddah Thiaroye Kaw mu nekk lu am solo loo xamante ne amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am laay sa yëg-yëg la. di wax ni comme ni nga ko waxee rek fii di fii si Jidda Caaroy Kaw ren mooy cant gi mooy septième édition chaque année nag ñu ngi koy def depuis ñu ngi ko commencé di ko def mais amul tànk gi tànk kanam tànk ginnaaw tànk kanam la am bañ ko commencé ba léegi sama yëg-yëg tey mooy kontaan trop parce que chaque année ni ñu koy def rek muy gën a yokk chaque année ñu ngi koy def muy gën a yokk tey ba ñu xëyee comme niñ ko daan defee wàcc nañ kaamil ci ngoon gi togg nañ ndogu yi joxe ñoo ngi xaar kanam tuuti cérémonie bi démarré xasida yeeg cant gi ak gi lépp ci kanam lay démarré. tey yan jàngkat ñooy jàng guddi gi. waa tey ñu ngi ne Aliou Aliou Gaye dina fi zikar Moustapha Jémé ak yaa yaa yaa aada dinañ fi zikar am na tamit kuréel xasida goo xamante ni moo war a njëkk a commencé balaa zikarkat yi di commencé am na tamit waxtaankat bu fi war a waxtaan dina waxtaan rek ñun ñu si wax ci yonent bi wax ci sëriñ bi sonn ñun ñu si. waxaloo ma waxalagoo ma ki xale yi bëgg de tuddagoo ko de sunu zikarkat waaw. Pape Diallo Zikroulah mooy suñu zikaarkat waaw moom ku nekk xam na ne bés bi moom am na ci yéene bu baax a baax chaque année moo koy zikaar moom tamit xam nañ ni ci li mu nekk mais dinañ jàpp nañ ni dina fi teew tey ci bés bi parce que waa Jidda Caaray kaw yëpp koo leen laajtee koo leen bëgg ñu ne la Pape Diallo Zikroulah moom lañ bëgg de waaw moom yaakaar nañ ni di dina ko fësal ci bés bi bu baax a baax. chaque année comme ni mu ko daan defee rek loolu moom yaakaar naa ci kanam tuuti nañ ci xam dara. incha allah ñu ngi lay kontaanee bu baax a baax laay ñu ngi bég bu baax a baax kontaan nañ tey ñu ngi ñëwaat nee naa la ba tey ñu ngi ci cant yi nga xamante moom la Baye Serigne di def nee la mu nekk cant yoo xam ne at bu nekk lañ koy def ren nag mooy septième édition bi mu nekk loo xamante ne ma taxaw ak ki nga xamante ne nag sama xarit la sama nitu démb la sama mooy ki xamante ne euh, ndeysaan euh, xaritu magu ki nga xamante ne mooy def bis bi wax Mbaye Sène Mbaye Sène nag ku ko réew mi nee naa la waaye laay ku ko xamal it dégg nga ko ci réew mi laay maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la kontaanee bu baax a baax. ñu ngi lay fay sama xarit sama doomu ndey di la sant yow di la gërëm ci teewaay bi. ah di la gërëm bu baax di wax ni rek sa teewaay si bés bi lan la woon laay. waaw teewaay bi du dara lu kóllëre ndax Baye Serigne Mbaye seen magam ñoo bokk fa ñuy yëngoo te chaque année dafay def invitation di joxe ay ndogu. ndax seen papa ak seen yaay dañoo baax gore nii lañ mës a mel nii lañ ko daan defee ba ci ñoom lañ ko gisee chaque weer suñu kooree première samedi deuxième samedi bi dañuy woote joxe ay ndogu jox def ay cant sëriñ bi ñëw sant leen ñaana leen waa koñ bi yëpp xam nañ loolu ci ñoom yow mii ci liggéey bi nga daan jàpp ci waañ bi nga daan nekk di togg di segg di jox gaañ yi ñuy lekk te loolu dafa baax rawatina weeru koor nit ñi amuñu lu dul lool lool rek lañ ci am moo tax. chaque année su ma ko yëgalee rek damay bàyyi li may def lépp ñëw yéen ak ñoom nekk ak ñoom ba fajar gi ma doog a dellu ñibbi. lan ngay yi nga xamante ne tey dañoo toll ne Baye Serigne nekk ay xale euh, di def naka sudul noonu di tax taxaw si société bi ñu nekk nii ak si réew mi toll lan ngay conseillé suñu rakk yi suñu xarit yi si nga xamante ne suñuy doom lañu lan nga leen di conseillé parce que ku ne xam na ne léegi jamono ji tërëdi na tërëdi goo xamante xale yi tey ñu ngi def lu nekk ci dëkk bi lan ngay conseillé sa doom yi sa xarit yi sa rakk yi sa ñëpp daal sa yi daal macha macha allah. waaw ñu góorgóorlu rek te bañ a ndax adina dara xëyul sotti da ngay muñ tey góorgóorlu nekk ci li nga war a su fekkee da ngay jàng nga jàpp sa njàng su fekkee da ngay jàng métier nga jàng sa métier su fekkee amoo lu yëpp nga toog seen kër déggal sa ndey ak sa baay parce que kuy déggal sa ndey ak sa baay rek doo juum bul dañuy ba ba ci ñun tamit doomu mi nañ rek te li olof di wax n'est pas sous métier nit bu mu xeeb li ngay def même soy balé ñu lay fay sax teranga la lu nga nekk ci baña tuk baña nan te déggal say wayjur képp ku la mag nga jox ko cër te doylu xam li olof nan sacc raw sa wërsek la dang ko koy nit du yàkkamti man bëgguma xalé bu yakamti gorel wet gore liku gore parce que àddina so saccé wala nga jël naka su dul noni dang koy maye wala nga duxee ko wala nga nané ko amul ben sens lu rek nga nek li nga wara nek kenn gënul kenn Macky Sall da jité réew mi waaye waaye taxul mu gën keneen ak keneen ñun ñëpp ay doomu aadama la ay nit lañ nit da ngay gëm sa bopp góorgóorlu Youssou Ndour ci ay pot la commencé te tey mi ngi employé ay nit ay bugaan yi xëyuñu am dara te tey ñi ngi dem bay jàppale ay nit yu bari ku nekk na gëm sa bopp rek def li nga war a def góorgóorlu ku ci nekk soo góorgóorloo rek yàlla teral la nit bu mu yàkkam macha allah ku ci nekk boo góorgóorloo rek yàlla teral la laay ñu ngi lay kontaanee bu baax a baax a baax di la wax rek am na ñoo xamante ne dañ naan booy def euh, ay ndogu wala ngay def lu baax waroo ko wone waaye lu mel ni war nañ kaa wane ndax xale yi nga xamante ne dañuy taxaw beneen taxawaay ñu daal di xool ci lii di ko roy. waaw gis nga def def ndey du alal xol la xol mooy jëf ñoom ñii tanewuñ ci koñ bi ëppalewuñ ci koñ bi mais dañoo gore rek lañ am lañ boole lépp jox jaam yi loolu lii dañ ko war a wone parce que lu baax la nekkul ngistal ay sanga fii ñëw ay nit ñu baax a fii ñëw tudd yàlla jaamu yàlla jox nit ñu lekk loolu kañ ku ko mën da ko war a kaw. kon yaa waaw waaw ca kaw ca kanam damay dem sunu ko solo wat lan ngay tëjee ak looy ñaanal kifni TV moy télé bi nga xam dañ ko tuddé kifi gën moy borom barrière woon. waaw ah koku yal nako yalla yëkëti ba mu bokku ca ñu gëna a siiw ca kaw yal nako yalla yëkëti ci barké wëru koor bi yalla def nga bokku ca directeur yu magi yak sa employé yi ngeen andal yépp yalla na leen yalla defal jamm parce que télé la bo xamanteni ñëpp ci bayyi xel ñëpp koy dégg nekkul télé bo xamanteni day bëgg lu ma samba neex wala lu ma samba nakari day def ta yalla tax neex rek te lii dëgg lay wane kon moom ca kaw ca laay maa ngi koy kontaanee bu baax nee naa la laay la woon nee naa la ñoo ngi woon fii Jidda Caaroy Kaw fii ci Jidda Caaroy Kaw muy cant yi nga xam ne Baye Serigne moo koy def di wax ne rek Kifne moo fi ñëwoon xam naa nee naa la ne fon nañ ko daaw fekkee déwén ñu baaxantal ko di ñaan yàlla may ñu fekkee waat ko ay at yu bëree bëri di ñaanal Baye Serigne xam ne moom moo samp lii yàlla na may gudd fan ak wér may ñu ñu teewewaat ko at yu bëri bëri ba ñu ñëwaat fii ci ci bis euh, fi nga xamante ne muy Jidda Caaroy Kaw may kontaanee sama caméraman bu baax a baax waaye duma fàtte ba mi nga xam ne mooy technicien bi ndax lu baax moom moo koy defar waaye sama kilifa duma ko fàtte muy sëñ Moustapha ndax fu ma ne ko caméra yi mu ne ma jëlal yóbbu fu la neex kon maa koy kontaane bu baax a baax di leen kontaane di leen ñaanal jàmm yal nañu yàlla defal jàmm jàmm ci kaw jàmm ci la lépp xaj yal na yàlla yokk sutura yokk teraangay may ñu doolee poos may ñu ba déwén ñu fekkewaat ko incha allah moom ki koy déglu rek mooy mbokkam kon nag ñu may teewlu may ñu déglu ngir jëmi Serigne Thank you.